yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam euh, ñoo ngi euh, am mbégte trop teew fii euh, ki nga xam ne moo jiite tey yoonu Tijaaniya di xalif général des Mourides sëñ Babacar si des Tidiane sëñ Babacar Sy dalal ñu fii yaatal ñu ñu koy nuyu di jaarale suñu nuyoo jaarale ci moom suñu nuyoo ci njabootu El Hadj si Sy yëpp amul ku ñu bàyyi waaye jaarale ko ci kilifa diine senegal yëpp ak jullitu senegal yëpp ci lii nga xam ne moom la ñu bokk muy euh, màggal ki nga xam ne mooy ki yàlla yónni woon ci ñun. di ko ñaanal moom xalif général de Tidiane yàlla yokk ko wérgu yaram may ko fan yu gudd a gudd te lii mu taxawee diine gi yàlla may ko mu wëyale ko nu mu gën a yàggee. Euh, dalal nañu it euh, gannaaw bu ñu jaaree ci sëñ Abdou nga xam ne ñëpp xam nañ sama diggante digganteeg moom di sama baay di sama kilifa di sama sëriñ ñëw nañu fii mu dalal ñu ñu waxtaan nag waxtaan nañu ci bés bi ndax looloo ñu andi bésu diine la wala ci sax jamono ji ndax màggal euh, gàmmu gi dafa am lu ko jiitu li ko jiitu mooy fan yi ñu toll nga xam ne ni ñu ciy def burdu bi di ay ñaan ñuy jagleel réew mi waaye waxtaan nañ it ci bés bi ñu jëm dëgmal kon waxtaan nañu ci diine waxtaan nañu it fàttali naa ko suma digganteeg euh, yoon bi mu yoon tijaan yaa waaye sama diggante it ak kër gi ndax bi ma ñëwee daaw waxoon naa ko ko yàlla daf maa may ci sama wàllu waajur bu jigéen may sët ci alaaji rawan ngom kon ñëpp xam nañu lan moo woon diggante El Hadj Rawane Ngom ak El Hadj si ba ñoom ñaar ñoo njëkk a taxawal gàmmu ci premier édition bi ci jamono ay 1900 euh, euh, wala yu demee noonu kon relation yi fàttewaat nañ ko ko ñu rafet rafetlu ko ñun ñaar ñëpp parce que luy euh, établir yee la suñu diggante gannaaw gi waxtaan nañu tuuti ci li nga xam ne Euh, en tout cas man waxtaan naa ci li nga xam ne sama cër la ci réew mi ci wàll may yëngatu muy wàllu politique fàttali rek yenn fondamentaux yi nga xam ne mooy taxawaayu suñu parti ñun mooy weesuwul ni bëgg réew mi gëm ni réew mi lu ñu mun a defar la ci nu gën a yombee teg ko yi ci suñu idéologie ak suñu gis-gis muy patriotisme di défendre suñuy principe ci fulla ak fayda waaye lépp nag ñu ànd ci ak tey ak dal ndax bari na ñoo xam ne suñu buggee jaxase xelu Sénégalais yi dañ naan ñii dañoo ñëw pour yee fitna waaye kenn mësuñoo gis ñu saaga kenn mësuñoo gis ñu woo nit ñi à une révolution wala yu mel noonu waaye nag am réew ñëpp mënuñoo bokk ànd li ma wax léegi kilifa gi nee na ko yàlla nee naa ko yàlla ci boppam bu ko neexoon ñun ñëpp. dañuy nekk benn xeet nekk benn euh, etni nekk benn diine nekk benn tarixa suuf si sax benn continant rek lay ne waaye moom la soob mu def ñu ñuy ay pàcc mu ne inna jaalnaakum shuuban wa qabaa'ila foofu la jeexalee wax bi ñii weex ñii ñuul ñii gàtt ñii njool ñii di joolaa ñii di séeréer ñii di manka ñii di jullit ñii di katolik ñii ne animiste lañu kon unanimité mënul am moo tax ñu andi démocratie kenn ku ne li nga gëm nga mun koo exprimer ci tey ak ci dal ak ci jàmm ñu fàttali taxawaay boobu it parce que baax na su ñëwee ci occasion yu mel ñu leeral ko bi ñu baree nag sëñ bi moom wax dëgg yàlla euh, wax na wax yu rafet ci li ma njëkk a wax ci bés bi waaye ci li nga xam ne mooy suñu diggante ci wàllu deret ñi nga xam ne suñuy maamaat wala suñuy maam ñoo ko seqoon daa di nag daaneel ci ay ndénkaane ndénkaane yi nag ñëpp xam nañu ndénkaane suñu kilifa diine lan la te loolu mooy seen cër ci réew mi kilifa diine yi waxuñu ne lañ leen dem leen gérer suñu armée wala dem leen gérer suñu administration wala suñu diplomatie waaye ñoom lañu dénk lépp li nga xam ne dafa jëm ci liy defar nit ñi ci jikko ak ci comportement ak li war Euh, euh, dalal réew mi li tubaab bi wax stabilité loolu ñoom du ñu dañ ci di ko rappeler nit ñi amul kilifa diine boo xam ne wax naa sànq nit ndax toog nañu ba jamono ji amuñu woon loolu te li xew réew Afrique yu bëri amu fi du coup d'état du guerre du guerre civile kon su dee lii lañu am ñun ñëpp dañoo war góor góorgóorlu di ko sàmm teewul nag kenn ku nekk li nga jàpp ni mooy sa dëgg nga mun ko di ko wax ak di ko jëfe kon loolu moo newoon waxtaan bi ñu ciy gërëm sëriñ bi bu baax a baax a baax di rey réitéré li ñu wax mooy di ñaan yàlla mu may ko fan yu gudd a gudd a gudd may ko wér-gu-yaram may ko lii nga xam ne mooy mbébétam ci yoon wi ak ci diine gi yàlla na ko yàlla jàppale mu jëmale ko fu kaw a kaw a kaw loolu daal lañ ci mënoon wax ci tënk ñu ngi leen di gërëm bu baax jërëjëf merci Oui, je commencerai par rendre grâce à Dieu, prier sur le sceau des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et euh, réitérer mes salutations et mes prières à l'endroit du Khalif général des Tidjanes, Serigne Babakarsi, qui nous a fait l'honneur de nous accueillir aujourd'hui après notre audience avec Seigne Abdou. et de nous avoir permis de discuter longuement euh, sur euh, beaucoup de choses de manière transversale. Euh, je rappelle que nous sommes là dans le cadre du Gamou, qui est un événement qui célèbre la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est un événement célébré partout dans le monde et partout dans le Sénégal. Et nous ambitionnons d'ailleurs de faire beaucoup d'autres foyers religieux Euh, dans les 48 heures à venir. Mais nous avons démarré aujourd'hui discussion très directe et très profonde avec euh, général qui a consisté à réitérer euh, avec Tuaon, des rapports euh, qualité euh, à, à l'image des rapports que nous avons avec tous les foyers religieux, musulmans comme chrétiens. Euh, rappeler aussi les liens filiaux que nous avons avec Toyaon à travers notre lignée maternelle et à travers euh, notre arrière-grand-père Aladji Rawan Ngom, qui est l'un des instigateurs de ce gamou à côté de euh, Elaj Nous avons beaucoup discuté sur ces liens-là. Évidemment, nous en avons profité pour euh, euh, rappeler aussi notre démarche et notre posture dans le pays par rapport au domaine dans lequel nous évoluons. C'est toujours bon dans ces gardes circonstances de le réitérer. Et le calife nous a euh, réitéré les conseils qu'il nous avait donnés l'année dernière d'ailleurs, dans la même occasion. euh, consistant à, euh, tout en respectant notre ligne, à mettre en avant les préoccupations, qui sont les préoccupations normales de tout homme religieux, c'est-à-dire sauvegarder la paix et la stabilité dans le pays, et à formuler beaucoup de prières à notre endroit. Évidemment, sans manquer de magnifier ces relations que nous avons avec Tuaon, mais ces relations que nous avons également euh, de manière filiale, comme je l'ai dit, à travers nos parents. Et c'est avec toujours beaucoup de plaisir que nous, avons, nous venons ici pour, euh, dans le cadre du Gamou, rencontrer le calife et échanger avec lui en profondeur. Cette, euh, sensibilité dont vous faites euh, a, été, a fait l'objet d'un appel de la part du calife général du Comment est-ce que vous l'avez appréhendé Oui, vous savez, la paix, Naturellement, le Sénégal est un pays de paix, euh, nonobstant quelques problèmes qui, peuvent, qui existent dans tous les pays du monde. Mais nous avons un pays qui a une réputation, une tradition de paix. Je rappelais d'ailleurs au calife que nous, acteurs politiques, c'est parce que nous sommes préoccupés par cette paix que tout en défendant nos idées et nos principes, nous, nous refusons à aller à certains extrêmes. Rappelez-vous que au lendemain de l'élection présidentielle, aucun acteur politique n'a appelé à sortir ou à manifester. Pourtant, la tension était vive et tout le monde s'attendait à cela. Ce nous n'avons que ce pays. J'ai tendance à dire que moi, je n'ai aucune autre nationalité et je ne veux aucune autre nationalité. Je suis fier d'être sénégalais parce que c'est Dieu qui a choisi pour nous. Il aurait choisi, s'il voulait, je serais né au Japon, comme vous, comme tous les autres, ou aux États-Unis, mais il a choisi le Sénégal pour nous et nous devons être très très fiers d'être Sénégalais. Et c'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'autres nationalités. Nous n'avons pas besoin de vivre ailleurs qu'au Sénégal. Mais quand vous n'avez qu'un pays, vous y vivez avec vos parents, avec vos enfants, avec vos proches, vous ne pouvez pas souhaiter que ce pays brûle. C'est illusoire de le penser, parce que s'il brûle, vous serez le premier à brûler. Et donc, nous profitons toujours de ces occasions pour rappeler ces messages. Mais les guides religieux sont dans le rôle. Par essence, la religion, c'est la pacification des âmes et des comportements. Et c'est tout normal que les guides religieux rappellent tout, toujours cela. Les guides religieux n'ont pas vocation à euh, euh, euh, gérer notre armée ou notre administration ou notre diplomatie, mais ils sont les gardiens et les surveillants de notre comportement moral et de la pacification de l'espace. Et c'est toujours avec beaucoup de de, de, que nous recevons, ces rappels, parce que c'est des rappels, nous recevons ces rappels de nos guides religieux, de toute obédience. J'étais à Popongine cette année, euh, le même message a été lancé. On, était, on vient de sortir du Magal de Touba, le même message a été lancé. C'est ça le rôle des guides religieux. Ils sont dans leur euh, registre et nous recevons toujours ces rappels-là avec euh, beaucoup d'ouverture parce que le rappel sert, comme on dit.